koy defee nag euh, àllarba ñu ànd ci ak yéen muy émission boo xam ni def euh, yittewoo waxtaanee tolluwaayu réew mi euh, loolu moo tax Faram Facce télévision Futur Média di ci ànd ak yéen en direct tey nag nekk Faram Facce bu njëkk ci atum 2023 ñu ñaan yàlla mu nekk at boo xam ni atu xéwal la atu natange la atu jàmm la Ah, loolu mooy li nga xam ne ñu ngi koy ñaan euh, di ko ñaanal képp koo xam ne yaa ngi seetaan télévision future Média wala ngay seetaan bépp télévision bu mu mën a doon te nekk ci àddina bi ñu ngi lay ñaanal atu jàmm atu dal atu xéwal atu naataange. Euh, di leen baalwaax itam di profito ci at bi di leen baalwaax di leen baalaax euh, dañuy faral di koy wax parfois ñun ñi nga xam ne dañuy wax. Euh, ngeen di ñu déglu li ñuy juum itam di bari euh, occasion yu mel nii la mën a am ngir di leen jéggulu euh, di leen wax ni suñu yéenee du tooñ suñu yéenee du wax loo xam ni itam lu tegginuwul la suñu yéene mooy wax loo xam ni daal dañuy jàpp ni lu baax la njuumte nag bu ci amee mënta ñàkk euh, loolu ñu ngi ciy jéggulu di baal wax itam ñi nga xam ne ñoom lañu bokkal kër gi euh, di leen baal wax di leen euh, ndokkeel ci at mi di ñaan itam at mi nekk atu jàmm atu xéwal di ñaanal ñëpp bon et heureuse année tey nag ci seen émission faram fàcce ñu am ci gan Tafsir Thioye lay wuyoo moom Tafsir Thioye moomu moom mooy porte parole lu parti démocratique Sénégal moom la ñuy recevoir mbokk yi tey seen émission faram fàcce monsieur Thioye Tafsir ñu ngi am mbégte bu yaatu di la dalal ci faram fàcce maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Pape di la jaajëfal ci ci sa invitation di am mbégte lool ñëw fii encore une fois ci sa émission bi nga xamante ni émission bu mag la très suivie par le par les Sénégalais et les di confondre nag samay nuyoo ci say nuyoo yi nga xam nuyoo nga ko waa Sénégal yëpp ak waa àdduna yëpp ñii seetaan ñëpp ñu leen di nuyu di leen ziyaara di leen euh, tatagal di leen ñaanal jàmm comme ni nga leen ko ñaanalee suñu borom dafa ñu jàmm ñun ñëpp Euh, di amee daal mbégte ñëw fekk si fii ci émission bi. jërëjëf wax naa ko tout à l'heure euh, porte parole PDS euh, mu nekk porte parole bu xaw particulier nag parce que li ñu parti démocratique Sénégal tàmmal ci porte parole porte parola wax dëgg yàlla du koo xam ni liñ koy dégg bariwul Tafsir ñun dañu xamoon par exemple ci suñu génération yu mujj yi nii rek. par exemple Babacar Gaye Amadou Sall wala ñeneen ak ñeneen ci seen taxawaay euh, ci ci seen yëngatu ci seen ñu leen di dégg euh, lan mooy particularité porte parole bi nga xam ne yow yor nga ko ak lan mooy différence bi ak lan moo ci lan moo tax amul animation. animation bi euh, Pape wax naa la ko je pense la dernière fois ci émission bi ma fi ñëwee animation ñàkkul. Mm-hmm. wax bi aussi ñàkkul dafa am ay façon yi waxin ak façon yi defin euh, dañ ma def porte-parole au mois de septambre si je ne m'abuse juin 2019 ñu dem fin d'année mbas mi dugg parti yëpp suspendre seen activité pratiquement 2020 yëpp les gens n'ont pas fonctionné 2021 pratiquement jusqu'à la fin jusqu'à mi-21 2021 pratiquement les partis ne se sont pas réunis alors loolu yëpp nag tombeek ñu def ma porte-parole mm-hmm. euh, mais terewu ma nag aussi maa ngi activé wu ci li ñu ma dénk parce que li ma yor encore une fois dañ ma ko dénk mm-hmm. ki may yor porte-parole am mooy président Abdoulaye mm-hmm. parce que moom mooy le porte-parole national du PDS mais moom mooy jël délégué ko ku ko neex mu délégué ma ko Abdoulaye Wade dugg ndaw il a été président de la république soo yoree parole am mënoo wax loo xamante ni moom àndu ci wala mënoo wax loo xamante ni moom waxuloo ko wala mënoo wax loo xamante ni parti bi waxuloo ko parce que mun nga ko wax yàqal ko mën nga wax yàqal parti bi ñu bari nekkoon nañ fi wax nga ni dañ daan wax mais ni ñu mujjee am nañ problème ak parti bi parce que nit doo ko jiitu ci li mu la dénk te man dama nekk nit bu maandu noonu laa bëgg fonctionner parce que li ñu ma dénk wutuma ci ku ma xam. wutuma ci lu ma ciy pukkare woo dama ci wut rek loo xamante ni li ñu ma dénk def naa ko Abdoulaye Wade moom ma félicité boppam. envoyé ma message mail xam nga Wade moom dafa nekk nit koo xamante ni nit ku yéeme la dafa mën jàngale. envoyé message ni ma yow ku baax nga yow ku dal nga yow ku pertinent nga ku technique nga mais fi nga yem rek la fi ñu lay yem loolu rek ngay yem mais loolu man doy na ma parce que moom moo ma dénk. tey bu ko dindi woon teg fële mën naa def ni ma daan def chaque semaine nga dégg ma mais comme parti bi réunion wul pour wax ni lii mooy suñu délibération mënu ma ko wax Ablaye Wade woowu ma ni ma lii ñii wax ko mënu ko wax mën naa nag am suba xalaat laaj ko ci su ne ma bàyyil noonu déglu ma ma déglu ko su ne ma waxal ma wax su parti bi réunion waxal mais su parti bi réunion waxul ni ma bul wax mais bu ma waxee mën naa wax loo xam ne ëllëg si mën finalement loolu moo tax depuis wax bu bari Pape man jàpp naa ni baaxul xam nga nag tafsir kenn waxul wax bu bari c'est-à-dire li ñu wax mooy jamono am fu mu toll ñu war a dégg parti bi war a dégg porte parole am loolu la ñuy wax. cest à wax ju bari kenn waxu ko parce que euh, wax ju bari amul njariñ loolu moom xam nañ ko mais ci sa biir wax léegi da nga am loo wax loo xam ne dama bëgg ñu taxaw ci parce que da ni ma euh, ñu bari ñi nga xam ne dañu nekkoon porte parole gis nga fi ñu mujjee dañu am. non yooyu yaa ma wax. waaw man non yaa ni ma yaa ni ma ñu taxaw ci loolu fi nekkoon porte parole. waaw bëgguma leen juger seen liggéey. non non parce que ñoom ñëpp sumay xarit boo leen bëggul jugé itam. waaw loo wax loo xam ne dama bëgg ñu taxaw ci. parce que danga ni ñi nga xam ne dañ fi nekkoon porte parole wax nañ ba am problème ak parti bi. waaw parce que moo dama ni loolu mooy constat bi. c'est un fait man tey mënu ma ñëw def li nga xamante ni am na ñu ma jiitu woon ñu def ko mu jàpp ni lii moo indi problème bi ñu am ak parti bi ma def loolu su ma ko defee damay am problème ak parti bi cest à loolu war naa mën a am intelligence. intelligence pour nit ñii fi ñuy jaar ba am bi man du ma fa jaar pour am ak moom parti bi problème ak parti bi ñoom ñëpp nag su may xarit lañ muy Babacar Gayo muy Amadou Sàllo ñoom ñëpp wax dëgg yàlla su may grand lañu su may xarit lañu jàmm rek lañ seq te ils sont bons techniquement très bons politiquement parlant mais dama ni man dama façon bu may fonctionner wax naa la ko fii naa leen man du wax lu ma wax loowul bi ma Abdoulaye Wade di woowee di ma ni kaay ma def la porte parole man ak moom ak yàlla dama ne ko maa ngi lay remercier monsieur le président lii mënuma la ko bañal parce que yow yaay ki nga xamante ni moom laa tànn ci politique bu ànd ak moom su ma demee ba ci sa biir nga jàpp ma war naa la war nga ma mën a dénk kàddu parti bi lu ma def lu dul gërëm la waaye nag jàpp naa ni man aussi am na loo xamante ni maa ko moomal sama bopp mooy que sama façon de faire sama façon de faire nag noonu la ma sunu borom bindee mais jàpp naa ni jàpp naa et puis parti bi man du ma dekk porte parole bi man kese ah, dama lay wax dama parti bi moom dafa wax non waxoon naa la ko ni la PDS du parti caaxaan dafa spécial wax naa la ko benn bi mooy parti bi dafa am ay porte parole man nii am nañu pool lañu ñu bari ñu ngi ci biir pool porte parole yi beneen bi dafa am ko xam ñu yor communication parti bi de manière générale la communication est plus large est plus vaste et plus large que le porte-parole là donc tey jii émission bi kan moo ko organisé ku dul communication parti bi ñoo ko organisé nest pas donc ñoom ñoo organisé émission bi ni ma moment bi jot na pour ñu wax ma ñëw wax mais su jeexee mën naa nekk na ci biir parti bi animé c'est-à-dire kuy dem ma jox la xalaat kuy wax ma jox la xalaat. mais ñi nga xam ni par exemple dañu jàpp ni comportement bi ni ñu ko expliqué am na ñu jàpp ni non frustration la c'est-à-dire euh, Tafsir Thioye dafa dafa amul dafa frustré ci parti bi ci investiture yi ni muy demee euh, muy législative yi wala muy leneen am na ñu jàpp ñoo xam ne dañu jàpp ni non kii dara mais dafa mer dem toog jàpp njàmburam euh, am na ñu gisee noonu ah. mais man su ma su ma meroon du ma dem réunion ñëw ma meloon du képp man déggoo ni ma la amul semaine bu ameen semaine amul semaine semaine laa la wax de. bu ma liggéeyul ci waxu PDS wala ma waxu ma waxuma ci PDS amul ça n'existe pas man Pape yàlla daf ma dimbalee ma nekk ko xamante ne ku patient la dama mën a muñ loolu la ma ñëpp xamee parce que dama jàpp ni suñu boroom muy fi li ma war a am man. dina ma ko jox. mais nag am naa loo xamante ni mën naa ko bëgg. te samay bëgg-bëgg sax mën na ba naa ko yemale. su ñu ma defee ma defal su ñu ma deful ma toog parce que bi may engagé wu PDS c'était pas pour être député c'était pas pour être autre chose parce que très jeune très jeune laa engagé wu biir PDS donc bu ma demee tey jii ba nekk ci député. mais Tafsir député loolu lay wax rek ah, dafa laa wax la. waaw dama lay expliqué li ma lay wax ni Pape. li ma lay wax ni c'est très important nga baal ma de. dama bëgg vraiment lu ci am aussi nga wax ñu ko rek. non man déglu yaatal ko. waaw dafa ndànk dama ne. suñu parti. man problème mhm. leen. woo leen ñoom ñëpp nga laaj leen man su ma kontaanul ci li ñuy def. da ngay koy wax dem direct. réunion laay dem toog. Mhm. ni leen lii ngeen def nii d' accord ma ci. ba ci investir yu mujj yi. mais investiture yu mujj yi non man investiture bi dama lay wax benn affaire investir dama ci sant suñu borom xam nga tax ma sant ci suñu borom suñu borom daf ma ci wan boppam. laay su ma soxna laay jël seede billahi wallahi tallahi dañ ma def position bi ñu ma def 33e sur la liste nationale ma jël position bi sama soxna moo ni ay yow ne ko bu ko commenté ma def ñaari rakk. sant suñu borom ni ko lii nii ñoom xamuñu li tax ñu def ma ko mais kon maa ngi ci gërëm suñu borom commenté wu ma ko amul kenn ku la mën a wax ni la tafsir woo na la di commenté euh, position ci parce que dama nekkoon député Pape j'ai été eh, tout à fait noté par mais pairs députés eh, qui eh. ont dit que tafsir fait partie des ou est le meilleur oui est-ce que comprendre nga si man loolu su ma doyul man tafsir lan moo mooy doyati tey ji su ma nekkaatoon député lan mooy yokk ci man u salaire bi bu may boo fay am avantage salaire ak peut-être passeport diplomatique ak peut-être nekk naa député mais je l'ai été xeebu ma député parce que député lu baax la mënoon naa ko nekk parce que c'est pour servir le pays mais du finalité sama action politique moi je plus ambitieux que cela bi may demee laaj leen suñu commande suñu débat bi ñu amee après investiture est-ce que j'ai une fois parlé de moi demandel waa PDS ñu ngi may seetaan li ma leen wax wax naa leen ko d'abord ci njëggi mbir mi ci suñu évaluation locale wax naa leen suma xalaat suñu programme pour dem ci élection législative wax naa leen suma xalaat investiture yi commenté wu ma ko globalement mais j'ai commenté li nga xamante ni moom la ñu fa leen jëm troisièmement j'ai commenté li nga xamante ni moom la war a def en terme d' alliance ak contre alliance parce que loolu aussi sama xalaat la man je suis un homme dama am expérience ci politique dama ci yàgg te yàlla moom mooy dimbale yàlla moom mooy dimbale pouvoir comme opposition lépp lu ma wax sama waa parti gis nañ ko duduwaat toog nga fii télé ñu dégguloon taf si du ñu daanu parce que la ma doon wax noonu moo doon comporté wu biir PDS noonu laay def dama naan jël sama sama temps man Souleymane Ndéné Ndiaye il est là mu ngi may seetaan premier ministre maa ngi koy nuyu suma la soxla mu ñëw ma wax ko suma xalaat ci parti bi Ablaye Faye yàlla na ko yàlla dem suma wax ko suma xalaat ci parti ñoom ñëpp muur leen kenn par kenn ni leen lii ak lii suñu ko deful fii leen jëm ñu indil ma lii man leen du ma ko def parce que bu ma ko defee xam naa ni fii leen jëm Macky Sall bi suñ ko bàyyee am nag jël lu ma ci amul xam ne suñu borom moo ma ko xañ ma continuer suma action mais yàlla mooy suutural parce que politique bi dama ci am mission man dama jàpp ne mission missionnaire la mission bi ma am mooy nekk ci suñu borom moo ma ci dugal la tax mu dugal ma ci moom moo ko xam la ma cey def nag ak la ma cey wax dama jàpp ni dafa a nuroog loo xamante ni man fi ma yere mhm. fi ma bokk ak fi ma jàpp ni foofu moo baax ni fa laa nekk ci loolu lay action position bi kontaanoo ci woon déggoo li ma la expliqué national ko wax sa soxna non mais déggoo li ma la dama dégg li nga wax mais dama ni mais position bi meroon nga ci. non mënuma ci mer xam nga mer ak kontaan mënuñu ànd xam nga mën nga mer ci ci doxalin doxalin bi ñu doxalin mën nga ci mer. parce que jàpp nga ni peut-être mën na bañ mais man ñi ñi ñi. moo gën a yomb nii ngay waxee nii. nga wax lu amul. waaw loolu tax moo tax man dama ko jomb. parce que su ma jabar su ma soxna su ma soxna sama position bi mel nga def ci 33e place. waaw su ma sañoon jiite liste bi sax. waaw mu ngoog. parce que ne la bëgg jàpp ni man mën naa man jàpp naa ni am naa lu ma mën a apporter en terme de valeur ajoutée mais suñ ma ko deful du metti mais surtout bii nag bu ma la expliqué sax péripéties yi ci xew yëpp nga xam ni man fii ñu war def nii man war naa ci sant suñu borom mais lan la lan moo xew après assemblée ngi nii. dem nañu ñu nga fa ñu ngi liggéey. mais man maa ngi ci leneen est-ce que ma daa léegi nag est-ce que tere na ma dund est-ce que tere na ma def sama action politique te tey laajal ñi nga xam ne ñoo nekk assemblée nationale sama taxawaay bi ñu waree def seen première séance yi assemblée nationale ouverture formation bi man la ñu choisir Doudou ñoo ko dem assuré ko pour ñoom pour xamal leen lan mooy assemblée xamal leen lan mooy budget xamal leen lan la ñu war a taxawee kooku mel dina ko def su ma <laughs> meroon du ma ko def mën naa nag problème bi parti bi mën naa am ay problème man ma taxaw wax ci suma xalaat boo xamante neexuma ci doxalin bi ma wax ko ci biir mais bu jeexee pare na mhm. man mosoo laaj leen ndax Tafsir nan lay comporté wu bu amul lu ko naxari devant Ablaye Wade sax président Ablaye billaahi Karim d' accord ma Lamine Thiam d' accord ma Doudou non non non loolu bu ñu ko defee baaxul yéen li ngeen di def nii xawma leen mais bind leen ci histoire na ko bind ne tafsir d' accord bind leen ko dama bëgg ngeen bind ko na ko histoire retenir c' comme ça que je su jeex na ñëpp sumay frère lañ su may sër kenn ku ma amal xaar ma yàlla biir PDS amul ça n' existe naa xuloo moom wala ma waxanteeg moom wax bi ñaaw wala ma waxanteeg amul ça n' existe pas parce que du suma mission du suma cër man dama jàpp ni yàlla moo ñu boole te li ñu boole mooy lenn la dogal la ma ñëw di politique parce que man sama maam ma dugg ci nag su ma doon ma ci naa ne mission la ma ci jox mission boobu nag damay jéem a ràññee waruma yàq d'abord sama liggéey ay mag sama ay ñoom maam waruma yàq seen liggéey pour dugg ci ay détails mais deuxièmement am na loo xam war naa ko mën a jombaleel sama bopp pour mën a ràññee ni lii mooy suñu borom dugal mission la ma ci jox mission boobu nag xamaguma ko maa ngi koy lijjanti pour téye ko maa ngi koy xool de di ko étudier ci dal nag pour téye ko bis bu ma ko téye nag daa xam ne lii nag suñu borom jox na ma ko ci mission bu ma doon doxal du ma ci xaar kenn du ci xool kenn dama koy doxal mais pour le moment PDS la biir te ñaan naa may mission boobu mu fekk ma ci biir PDS que parti boobu rek laa xam mosuma xam beneen ni da nga ni meruloo d' accord mën nañ ko mën nañ ko mën comprendre mën nañ la ko nangul parce que yaa ko wax mm. euh, mënuloo wax mënuñu jàpp leneen lu dul li nga xam ni wax nga ko mm. mais dafa am ñu mer te parti bi itam je pense que warul woon doxe noonu gis nañu taxawaay ci bu mel ni Mayoro fay amoon euh, gis nañu taxawaay bu mel ni euh, Cheikh euh, Mbacké Dolly bu tuubaa itam même chose nga gis ku mel ni Toussaint Manga ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam bu ñu leen doon lim du jeex fii ndax parti bi yow meruloo mais am ñu mer lan moo war a indi loolu pour yow ci PDS. bon PDS gis nga ñi mer noonu dem du ma tudd seen tur duma tudd tur kenn mais laaj leen ku ci nekk naa la ma dem sa kër. wala ñenn ñi ni la non bul mer muñal lii nii luy jàll la defal attention bu la kenn dugal ci wax yàlla xam na ko li wax nii donc pour vous dire pas man dama am fu ma dépassé sama bopp. ah d'accord waaw xam nga suñu parti li ñuy wax léegi génn ci sa personne léegi non ñu ñëw ci parti bi. waaw parti bi. Ah, c'est-à-dire yi quoi ñu expliquer ko dafa am solo. non pour revenir ci li ngay wax ci maire xam nga dama la njëkk a wax li ma xamante ni dama ko seexal suma soxna wax ko ko. Mhm. deuxièmement ma wax la ni ma comporté woo ak ñi nga xam dañoo mer. troisièmement ma wax la ne ñi nga xamante ni dañ leen fal dama leen ko yéene ñaanal leen ba pare dem jàppale leen ci seen wàllu capacité pour ñu dem assemblée nekk fa ay des meilleurs députés ba pare di continuer di leen suivre fu ñu toll mooy xool ci lu ñu nekk ak nan laa koy defee pour mu jong pour mu ñoŋ mais ku parce que PDS moo traversé moment yu métti waaw wax naa la ko fi la dernière fois bugguma sax ñu yàggat ce qu'on a vécu, je ne pense pas qu'il y ait un parti qui ait vécu ça dans un régime démocratique à travers le monde toroxal la ñu bëggoon def étêté suñu parti di ko tas amul kenn ku nekkoon biir PDS tey jii nga nekkoon président d' institution wala nga nekkoon ministre wala nga nekkoon premier ministre wala nga jiite woon ba des bu des biir PDS mos nga gis loolu tous les ministres qui étaient dans le conseil des ministres dernier conseil euh, ñoo ñoo des keneen de su fi yi da nga leen di compter ñaata député lañu am depuis 2001 2000 ba 2012 mais ñoom ñëpp dem nañu parti bu tudd loolu ñu tëj ñëpp ñii di dem ñii ñuy buntu xatal ñuy dem ñii ñu leen di menacer ñuy dem mais parti boobu mënul ñàkk problème ba pare Ablaye Wade bi ko jiite ce qu'il vit Pape je ne pense pas que mu mérite ko je ne pense pas que son parti mérite de vivre ce qu'on est en train de vivre mais parce que non seulement Ablaye Wade mooy le secrétaire général national il vit une situation extrêmement difficile man maa la koy wax parce que difficile pourquoi gisul njabootam du sëtam doomam du kenn koo xam nekk na ak moom il est là seul tu penses que Abdoulaye Wade mérité na loolu ñun ñu tekk di ko gunge ci loolu. non mais xam nga dafa nag dafa nag dafa nag dafa nag. non bëgguma nga ñàngal si njëli si njëli moo bëggul lu leer la dara lu war a mën a tere si njëli ñëw ci dëkk bi. amul dara lu war a mën a tere aussi Karim Wade war a mën a ñëw ci dëkk bi. gis nañ ko mu nekk ci stade di selfie loolu gis nañ ko. donc il faut que nga bu fekkee problème mu famille la loolu problème mu famille la. mais bëgguma nga ni ma noo Abdoulaye mi ngi dund loo xam ni lu lu metti la bëgg ko ñàngal noonu. man ma comprendre loolu. Pape bi. Mm-hmm. xam naa format bi. Mm-hmm. xam naa ni nga koy mais li ma lay wax nii c'est très profond. xam nga dama laaj ci PDS nu muy fonctionner. ma ni la Wade ce qu'il vit te mooy secrétaire général national bi xam nga bu fekkee ni kilifa ci kër dafa nekk ci ay tolof tolof wala mu nekk ci difficulté wala mu nekk ci njàqare dina feeñ ci njabootam dina feeñ ci doxalinu kër gi tey c'est ça en fait qu'on visait c'est le régime ce qu'il visait c'est de d'ensevelir le PDS d'ensevelir tous toute l'œuvre de Wade c'était ça l'objectif mais Dieu est juste on a résisté et aujourd'hui ñi nga xamante ni ñoom ñëpp ñoo bëggoon sànq PDS tey ñu ngi nii tey ñu ngi dans des situations difficiles et la preuve aujourd'hui dans l'actualité c'est Mimi Touré qui est dans des difficultés il était l'artisan principal pour li nga xamante ne mooy tam na saxal PDS mais tey mu ngi ci que pas bi góor gi du góor du nag mooy nga xam ne ñun PDS ñuy dund c'est parce que dañu tànc wax naa la lu ñu dund ku ko mësul dund mais boo ci génnee wala nga bëgg ci génn il faut nga def situation boo xamante ne dafay xaw a lu mel ni anormal Karim mooy sunu candidat non may ma ñëw rek may ma ñëw may ma rek may ma may ma dafa gën a métti opposition